asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nuyu nañ leen bu baax ziar leen amaat mbégte ak kontaante jàkkaarloo waat ak yéen comme ça su nekk ni ñu koy defee tey nag wasaare dañ leen a indil émission bu bees taax émission bi na ma tudd sama liggéey sama liggéey seen liggéey suñu liggéey nee naa leen sama liggéey dina seeti ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci seen bërëb bu liggéeyukaay di liggéey aca kàggu ñu tey ñu ngeen koy gisee ñu ngi fii ci euh, syndicat ñu seet waa syndicat bëgg a waxtaan ak ñoom tamit si ñoom lu ñuy liggéey ndax kat luñ sama liggéey la ñuy wax sama liggéey duñu bàyyi bàyyi kenn dinañ seeti ñëpp képp ko xam ne tamit bëgg nga ñu seet si la te seet seeguñu la dinañ affiché suñu numéro yi ci suuf comme ça boo ñu woowee rek mu ànd ak sama jinay caméraman bi le roi des caméraman kàggu boy bu gàtt bi daal di lay seet si kàggu aca bu baaxee mu daal dem dugg biir syndicat xool gars yi ni ñuy liggéeyee fii tamit maa lay fay maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm ba noo tudd Moussa Sène Moussa tey ñu fekk si la fi syndicat bëgg nga xam njaayu màdd bi nan lay demee fi njaayu jaay ma du de waaw ñoo ci góorgóor di ci taqale rek waaw waaw buy di ci jën di jaayaat daal waaw. mat bi mën nañ xam fan lay jóge mat bi mu ngi jóge Côte d'Ivoire Mali Kédougou mais instant nii Côte d'Ivoire bi rek moo ñëw waaw. bi saaku ñaata ngeen koy jëndee fe saaku vingt cinq mille waaw ci instant bi nii mais mën naa dem bu ay dix mille quinze mille. waaw. Ah. naka ngeen koy jaayee détail ngeen koy jaay wala da ngeen di jaay par saako. lépp la ñuy def détail par saako ak loo bëgg rek boo ñëwee di nga ko fi am incha allah. tey bu ma bëggoon saako madd bi ñaata nga koy jaayee. pour instant nii non yow moom garaawul. waaw boo ñëwee naa la jaay 27000 rek laa lay jaay laa la koy jaayee waaw. bénéfice bi nga ci teg bari na de. non bariwul 2000 bariwul. Hmm, détail bi par siwo ngeen di jaay ñaata ngeen di jaay siwo bi ak paan yi. siwo bi ñu ngi koy jaay 3000 ba mille waaw ba 1500 sax. Hmm. paan moom liñ koy faral di jaay bariwul. Hmm. da jaay par benn dañ koy sàmmee benn doom moom boo ko bëggee dañ la koy may rek benn doom moom jarul jaay. mu tax kalaasu Ami Jaw bi xëy gontu ñëw fii syndicat pour jënd si ay benn doom ñu leen may benn benn bi léegi njaay mi fii jan jafe-jafe ngeen siy jànkoonte fii nii ah fii nii moom comme ubbi nañ yoon bi moom amatuñu benn jafe-jafe ñëw bagage bi ngi ñëw normal ñu ngi koo jaay xanaa dëkk bi nu mel moom xaalis xam nga xaalis amul moom ci dëkk bi loolu donc de xanaa waaw. ñaata at nga def ci njaayu madd bi. madd def naa ci moins dix ans de. yaa ngi ciy gis sa bopp. waaw maa ngi ciy gis sama bopp baax maa ngi ciy gis sama bopp baax a baax. tey lan ngay wax waa wasaare société ak émission bi nga xamante ne mooy sama liggéey. waaw saare moom xanaa di leen wax ne noonu la rek jàpp te bàyyi dina baax incha allah ndax yéen a ngi góorgóorlu yéen a ngi liggéey waaw di fekk ñi fi ñuy liggéey ngeen waxtaan ak ñoom loolu moom macha allah waaw. ma la doon laaj dan moo la gën a neex Sénégal lan ngay wax. Sénégal moom yaa ma gën xam jamono bii de tane na sax fi mu toll nii comme bàyyi nañ feebar beeg yooyu noonu kufur beeg yooyu noonu mais daaw moom feeñoon na ci trop mais saa yi moom tane na bu baax a baax daal. tembe tembe nii mu tollu tembe tembe lan moo la fi gën a neex. nii nii nii nii nii nii ah comme ni ma la ko waxee rek <laughs> fi de daal sant nañ daal sant nañ baax waaw sant nañ baax ok ñoo far. ok maaleykum sëñ bi nuyu naa la. fay nañ la baax soxna si. ci jàmm yàlla alhamdulilah. maa tudd. man Cheikh Ibra Fall tudd. Cheikh tey ñu fekk si la fi bëgg a xam njaayu maade mi nan lay demee fi. njaayu maade mi ah ñu ci kawam de yu góorgóorlu rek waaw yu góorgóorlu waaw. yow fan ngay jëlee maade bi. maade bi Côte d'Ivoire lay jóge waaw. ñaata ngeen di jëndee saako bi. saako yi vingt cinq mille vingt deux mille waaw. waaw par détail lañ koy jaay. su ma bëggoon ñëw su ma bëggoo su ma ñëwoon bëgg saako bi ñaata nga ma koy jaay non ça dépend rek ci qualité maado bi nekk ci saako bi rek nuñ mën a def am si dara rek. Eh, non yemul fenn fur yi moom borom amul kii yaa ma gën a xam non non. lii wax seen prix yi mu <laughs> ba ba saako kii bi paanu mango bi ñaata nga koy jaay paan ban bii nii 5000 francs waaw. bool bi. bool bi 3000. yan jafe-jafe ngay jànkuwanteel ci njaayu maad bi. non màdd moom amul jafe-jafe soo amee lu baax moom amul jafe-jafe en tout cas lu baax bi rek moo ci am solo bu fekkee nga qualité bi ngay jënd moom boo jëndee lu baax moom amoo ci benn problème parce que ñi ko soxla dañoo bari ñu koy jënd naay si di ko jaay par doom am na ñu koy defar ay njambaan yëpp amul lu ñuy sànni daal lu ci baax dañ koy jaay. yow journée bi ñaata saako màdd ngay jaay. ça dépend ci na bi rek parfois mu neex parfois yaa gën a xam. léegi tey lan ngay wax waa wasaare su bi nga xamante ne mooy sama liggéey ak wasaare société. wasaare lu ngeen di wasaare lan la. sama liggéey maanaam liggéeyu gars yi lañuy jël wasaare liggéey bi kon koy wasaare leen lii rek mu gaaw waaw wasaare leen wasaare leen syndicat bi waa marché bi wax leen ne leen mooy loolu ñu ngi ci góorgóor ay borom ay góor yàlla daal ñoo fi nekk di liggéey daan seen doole ay xale yu am jom nag yaa ma gën a xam nangoo liggéey jaamu yàlla loolu lañ fi nekkee. tey bu ma la doon laaj lan moo la gën a neex Sénégal lan ngay wax. lan moo gën a neex ah, sama jeeg bu rafet bi am ah, ma wàccee gis ko waaw loolu rek doy na gel faaw ne naam gel ah kon tukk. tey papa tey madd bi madd bi jaay mi ni muy demee fii. jaay mi daal mu ngi nii dañuy jaayaatu rek léeg-léeg mu dox léeg-léeg du dox waaw léeg-léeg mu dox léeg-léeg du dox waaw. ma gis nga def euh, ñaari saam saam yi yu dëj saam yi sew ban yan saam ñooy gën a dox yan ñooy njëkk a jeex. non moom mooy li ma la wax rek nee naa la moom moom njaay mi gaawut waaw njaay mi gaawut dañuy saam rek yaakaar yàlla njaay moom gaawut waaw. ban màdd baa ñuy jënd bu mag bi wala yu ndaw yi. Oh, yëpp lañuy jënd yëpp la ñuy jënd màdd yi moom yëpp la ñuy jënd yaa màdd yi moom lépp lañuy jënd waaw. Eh, yow ñaata at nga def si njaayu màdd bi. Oh, mat na 25 ans ñaar fukki at ak na ko waaw ah, baax na. merci beaucoup. waaw ah, kay jërëjëf. aca jërë ngeen jëf nii la ñu leen ko waxee woon nee naa leen émission bi nii lay xel di deme saa su nekk sama liggéey sama liggéey nii lay xel di demee dinañ seeti ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi si waar bi di góorgóorlu ndax kat dama ko faral di wax góorgóorlu nag mooy tax a dégg waa góor tey nag syndicat la ñu nekkoon dégg ngeen jaaykatu mango yi lu ñuy wax dégg ngeen tamit jaaykatu maade yi lu ñuy wax nee naa leen chaque jour kàggu laa ci àndal la bawol bawol sama caméraman bu ñaawul bi jox leen rendez-vous beneen yoon incha allah yeneen i xele ak yeneen daankatu doole merci beaucoup